نخ سي بارا ها جوتو لا ديف خليفة صح تكر سي توبا فاي موك سي مور مصابوك جنة ناي موك سي مور مامون دي نيوا يارونو تكر سي توبا موم نك موم دون سي توبا يب موم دون ما تكر سي توبا نيغا خامي دوامي مامور انت سلي يب سي بامبا سي فيني مباكي بول sëñ Baara moom yi doomi sëñ Bamba yëpp moo ci feeñi Tuubaa waaw hmm. ah, soxna Aminta Lo yaayam nag ak pend bu ñu nii jur sëñ Omar Mbacke Garaawal seeni maama bokk jenn ndey ak benn baay soxna Aminta Lo moom it yàlla dogal na moo indi ah, ah, pend bu moom it jëkk jëbal sëñ Tuubaa moo gàmmu soxna Ami e Touré ba yit ko sëñ Tuubaa Daaru e Salaam ndam yu rëy yooyu am ci Cheikh Moustapha moom Cheikh Mamadou Amin moom Cheikh Mamadou Amin nag ah la mel bokk na ci ay kiimaanam loolu am na doomi sëñ Tuubaa yu ko def daa bokk ci mag ñi moo tax ñi ko bañ ñee xew nañ loolu yi ñu wax ne xew na dugg dugg dugg li ñu dikk feneen laaj ko fekk feneen laaj ci digg la bi foofu la tàmbalee di def nag ay climat njàng mi sëñ Tuubaa ko dalal baax waaw jaar na ci loxoy maam Thierno jaar na ci loxoy sëñ Dame Abdourahmane Lo ah xam-xam bi fii gars yi yëpp jaaru fa lañ leen ko jaare fa la jaare waaye sëñ bi dalaa luñ ko ci bindal nañ ko ko jox waaye buñ ko ci kenn sonal ci lii ak laa ndax saa si ngeen ko mën waaye batin moo xam ne ku yàgg ku xam laayee fu mu jóge xam li baat bi firi te jàng ko kooku danga ko koy won ba gis ko rek waaye gis ko ci def dara loolu sëñ Moussa Ka ne day woy te jànguloon xaraf ah kay jàngale xaraf kay waaye njàng ma nag da ngay bind jox ko mu xool rek ba mu yàgg mu delloo na kaamil ay kaamil sax di ko sëñ bi bëgg a jox soxna xarit gay moom mii ca Jolof 1909 doon na sëñ Modou Gueye jëmoo yi sëñ bi da ko nag da nga ma bindalub kaamil waaye ne sëñ bi ñaata fan koo ko sëñ bi ne ko boo demee kon bu ko daal di jalgati def ko ci benn bis bu baax yëpp moo ko ne ñu bindee kaamil daal sëñ bi daal la wax moom di ko réer ah ndax koo xam ne ba mën naa fàttu ci bi daal di yëtum kaamil sëñ bi ne ko waxuma loolu demal bind ko rek tuddoo waaw ah. ku sëñ Tuubaa bëggoon la ku ma fonkoon wax nañ ne daana ñëw sëñ bi di ko lalal waaye du ca nangoo toog moom aw daal sax dégg naa daaw ko sol fi kanam sëñ Borom sax daaw sol baax na li muy rëy rëy bëtin ak li nga xam nga xam waxtu wu toogee ñu ci sama xel rek day wax ah yaa nga bëgg a wax nangam di ah waaw ba mu waaw li nga wax dégg naa ko ci xel waaye man maa lay tontu nangam. gaa yëpp a ko weeroon waaye loolu yàqul ci taaliba kaw ga dara bu waxtu jotee day jàpp day julli day ngàmb kaamil di jàng. ñu ko jox mu fanaan ci loxoom daal bu ñëw. ministre la woon te kenn xamul fu ko jàngee te bu daajee kaadal si ba mu daaj baraag benn ministre bu mën a def lu ni mel amul buntu bu ko mos a daaj ñëpp dañ koy yéem tayoor la woon. lu mu mas ñaw dañ ko yéem ba mu tàmbalee liggéeyal Sëñ Tuubaa kenn xam ko ay mbaan rek daana ko saxalal addi yi mu ko jox nga xam ne lu mu bay sëñ baara mu samas mbay ci dugub ba gerte lu sañ mën a doon fuñ ko ah, sëñ Bamba bee ko seet joxe ci ndigal la loolee réew ñëpp it nag Mbàkke Kajoor la ci mujj am barab waaye barab bu am na ko ci réew mi ca barab ya fa ëpp moo fa ëpp Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor nee naa ca ndigal ko fa yóbbu woon rek fa yóbbu waaye dimbali ko muy góor tool yoo xam ne dafa bëgg a laxasaay daf di fa bay sëñ Ba ko ñu gindi ko fii rek te dimbali waaw nag mooy wii ba waaye fu ne moom am na fa kër fu ne sëñ ci na fa moo sax na jëriñ gaa yi sol xol yoo xay wàllu yu kajoor jikk ne waaye mu ne ak wàllu yu fépp rek de ak wàllu yu na dëgg waaw wax nañ ne 1936 ñëw waaw fu sëñ Omar Masane ne fekk na ko fa xaritam dëkk bi lañ fi tuddee ci ay baara Momadou Lamine yi ci aju gelaw ngal te sëñ Omar tuddee leen sëñ baara kër xamam tool xaritam woon lool moom dégg naa ñëw na fi yoon wax ne ñeexin fekk ko fa ba mu dikkee dañ ko ne sëñ Omar da néew fi mu naa ah, waaye bu fi ñëwul it borom kër gi ñëw la rek day lu fi war rek maa koy def lii ah bu ma kenn gane la rek day kër gi sama kër te fu ma dem rek day ah, mu mel na war a mel rek am na fa ñaari fan te sëñ Omar waaye bëgguñu woon mu dem ba muy dem réew mépp daj daj ko lu fee ñu mën a na des ci kër yi bokk yëpp it na daa jaxasoon sëñ Fallu nag daa mel na ñoo bokkoon ndey ak baay noonu la ko fonke noonu lañ daa ganentee noonu lañ daa waxtaane noonu lañ daa bokke noon noonu lañ daa bokke lépp gis nga ki ko sëñ Fallu tuddee ni mu toll sëdd ñi ko ci mag bëriwut waaw loolu ak juboo ko waral waaw eh, réew mi itam bari na ci foo xam ne sëñ Baara ko mokkal waaw ndax fu mos a dem ci adduna nit ñi daje nuyoo ah mu daal di def ñaan rek ah waaw rek nangam doon la bëgg a xew rek rek waaye ñaan naa ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak barke si Amadou Bamba ah da ngeen mucc rek de te li ngeen bëgg da ngeen ko am waaw réew mépp fu ne dem na fa mott li de jéego yi ñi sëñ bi bëggoon a dox ci biir réew yëpp demoon te fu mos a dem sëñ Mourou Moussa la fay nekkal sëñ Tuubaa la fay nekkal sëñ Fallu la fay nekkal sëñ Basiru la fay nekkal doomi sëñ Bamba yëpp la fay nekkal te ñëpp la jubóoloon te ñëpp da leen a fonkoon lool dégg naa sëñ Saliou mii dem bëgg dem rek sax parce que booba Mbàkke Kajoor téye ko fa téye koo xam ne wax ci moom yoo xam ne kii maa te booba kenn xamul woon ne sax lii dana am waaye junjoon na ca ne bu ba ca kanam ah rek day ah dana daj fépp rek di na ko ci ah waaw noonu la fonke woon sëñ Abdou Lahad noonu daana ko defante ak moom ñun ñoom ñëpp gis nga waaw moom doy na kii naan gis nga Abdou Lahad mi mu tudd sëñ Abdou Lahad ah mag la te loolu ak xarit na boobu sëñ Abdou Lahad ay atam àggagut foofa waaw njàmbaaru liggéey ak njàmbaaru joxe ak njàmbaaru dimbalee loolu ñu nga dégg ñu naan sëñ Baara daa tàngal nangal déedéet nit ku fi woon di àll ni ci kenn mës a gis ko sëñ Baara wax benn baat bu la naqari ba ñu ne kii moo ko arab yaa bi kii moo ko rey baa kii dig ko dara du noona déedéet mu sam ku ma sa ñëw fi moom rek lu ñu fi dang dang dang mën na agsi rek waaw tubaab see ma ne ko ah luñ sa yittee ngay nak naka man ah xam naa ko di jël nga di ko wax nangam ak nangam ak taw jóg ah diw nañ ko daal di wutal nangam loola la moom mooy waxal boppam moo lay tontu ku ma sa tàggoo bëgg a dem ah di na nit ba tàngal ah li tax ma di la téye daa am loo xam ne bëgguma nga dajee moom rek toogal ba loola jàll ku mu mos a téye war na maa yow mu ne am lu ma bëggoon mu ñëw rek nga fekk ko fii ah loolu laa si na kon mosoo moom day jaarut ci ak xalifa xëy na waaye lu xalifa waroon a def rek def na ko te sëñ Tuubaa rek la daal liggéeyal yoo xam ne dañ koy tabax téeméeri ponkal laxasaayoo Mbàkke Kajoor ba faneen li ko yor sëñ Tuubaa am na ci mband yoo xam ne bañ ko indee ba dëkk bi mu yaa mbay timbe si la xuma da am dafaa toj ñu ne dëkk bi ku maanaam tabax mbaan am na ci ñu ne waaw waaw ñu ngi fi ne gaañ ñu dem ba tànn mbaan mañ gën a bëgg boole ko njëndaay daal ko yor sëñ Tuubaa sëñ bi nag bu ñu masaa dikk ne ko waa kër sëñ baax la andi nañ nangam day fonk loola lool ana Mouhamadou Lamine ñu ne ma ne ko jërë ngeen jëf yéen day tuwaat kàlla sant sant na baax baax wax dëgg yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy daal am bis la sëñ bi ñu yër ndaal wër ndaay wër ndaay ba muy téeméer mu àgg ca ndaaloo la ñu jóge na ne ndaa lii lay sabab sax dégg loolu téeméer yi mbànd yoo xam ne leen la ca toj ñu remplace ko te kenn mënu leen a xamee ñu yéene ko ndaa yi mu ñu ba mu yàgg mu teg tànk na mbànd mii moom lay sabab sax mais ñu wër bu wër ne na ñu kenn waa mbànd mi lu mu doon ñu ko mu yàgg waa mbànd mi du ma jëlee woon sëñ bi ne ah kay moo ko waxal boppam ana ana ma ngeen ko wootee ñu ne ko moom day daa toj mu ne jooy nag soo xëy ci geer moo jooy ne parce que bi ci mët la min amoon ba war ma koo yót ngeen ma ci ko foofa moo leen di wax loolu yi nañ daal di lekk te daal di indi xotte yi loolu na ki naan ah ah loolu doy na ki naan sëñ Cheikh Mati lay mii mas naa am lu woyof lu ko dal sëñ Baara daa teg ko fas foofe ba yut ko sëñ Tuba sëñ Tuba gis na ko fi mu sëñ bee ko fabal boppam teg ko ci kawam jàng tëfli jàng tëfli jàng tëfli lam ci wax nag sëñ ma ko wax ci rajo waaye boobaa xam naa ne lii am moom booba la waaw waaw waaw rek dogal ba jiitoon ak juróom waaw ne sëñ Moussa Kanaan fa yaaju moo ca gën a gaaw day fal di falee ci lu gaaw lu mu wax mën a gaaw mu ne waaw mat naa ragal ci xaram day woy te jàngul woon araf te man la xeem du ca suruf moo man araf te man waraf yi man la mboolem xam na waaw waaw loolu faj aajo moo ca gën gaaw waaw moo ko wax waaw ak yu bare bare bare wax nan tëgg amadul lamin moom la ñu may ma soon xar baax waaw feese bana guun bamba ko lam ci xaloon waaw dafa waaw waaw baatin baatin ba jaaxal na Kajoor waaw ba faaw ko fekk bi ba ngeen ne koy lu mat semaine ah moo tax ñu ñu lëm ko jëme biir nee na baatin ba jaaxal na Kajoor moo tax ñu fab ko lëm ci biir ba foo ko fekk muy ba ngeen ne koy lu mat ci xaram ah noonu la mënoon de lu mas a bëgg a am daana ko wax lépp lu cay muur leneen loo xam ne dana war a lore dana wax la ci tax a mucc lépp luñ soxla da koy tax a gën a gaaw dana wax la ko taxaw waaw te lu waay mos a wuti ci moom ngir bëgg mu ñaanal la baa ma faj fa saa sa baagee bu la xoolee loola am loolu nag yàlla def na ko xam ay kiimaan moom am na ci waa këram ñëpp daanaka lu mën a daanaka ñëpp rek koo ci gis te it ñoom ñëpp a woyof ñoom ñëpp kenn ku ci am ak diis ba ak rëy amul taalibe gi ci seen baay mu nekk ci seen maam boogaane ci ñun ñëpp ay taalibe ah waxtaan nag moom tabarkàlla waaw ah, loolu day moom gannaaw bis bii ñuy bëgg a jublu ab bisam ah moom Mbàkke Kajoor la wàcce bu liggéey Tuubaa la ganee àdduna ah wàcce ba mu wàcce ab liggéey nag Mbàkke Kajoor te moo ko taamul boppam te loola jublu ca lu weesu sëñ Bamba da ko naan demal Kajoor fa kar amar faal toog loolu déglu ma fa baat boobee moom moom la sàmm sëñ Bàmba la fonk fonk sàmm baatam waaw ndax sëñ Mandu Mbay mu baax moom i kat ñu bëgg a bàccub liggéey def na nañ ma yóbbu ca daaray takk dere yi ci day ndey su leen neexee sax sëñ ba ngeen def ma foofa ñu ne ko loo ca jublu mu ne damaa ñëwut sëñ Bàmba di ma laaj ma wax ko fenn fooy bàyyi ko fu dul fa donge en borom may fan gudd ak wér ak sutura ak taanga te dimbali nu te taxaw na yéen ñii di waa isbu tarxee yi itam ah man de bëgg naa ñëpp maase ci yéen ci ci di leen roy ci ñett ak lu waay mën a wax nañ leen roy ci ñett rek koo seen xam ne taalibu sëñ Bàmba nga ngir col ma yar baag teggin ya mate ko ak sutura sa teraanga sa boo jàngee ku xam sëñ Bàmba jooy ba lu mu amee dana ko joxe buñ ne ñu ngay liggéeyal ki nekkal sëñ Tuubaa kenn du la ca ñooy bokk sëñ Tuubaa téléphone koo ca xam te jotee moom la nga ca mën ci talaanga yaa ngi koy def loolu bi moom la neen lu ngeen bëgg saw yoon ci waaye loolu yi day man mën na bëgg naa leen ci roy te bëggoon naa ñëpp roy Aatu Jaañ mu jiite yooy naa ko ñaanal sama borom guddalu fanam te wéeri ni cëram te dëgëral ab taxawaayam sëñ Bamba rek la fi nekkal te xam nañ ko dun waaw waaye sëñ Tuubaa de ñekkut fay la sama baay dafa wax ne fu mu ne foo fala foo fala ko waral ñu ko mu ne dafa ñëkkul xam nekkul ñëkkul fayda néew liwul ba naan dama ci jàppale ba jekkali xam-xamam doy na sëkk ba baatinam fayda mat na sëkk la leen lu mu bëgg doy la kenn na ko muy jàppale teg la fi barab ngir di la jàppale ngir ne moo jekkati ko def na sëñ Tuubaa amu ko comme taaj fi barab ku la tax mu taaj la fa xam na ko te seet na ko ba nga mat